الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم yaa himmata cheikh xuduri lana bi hada almaxdari waltaatifi bi nazratin taati lana bi zafari kon nag alhamdulilah ñu sof lii ñuy wax ci olof te la la ñu waxoon ci waxi yaaram Euh, gannaaw bu ma nuyoowaatee Cheikh ibn wa xafid al mashayikh Ibrahim Mamoun Niass wa jamiica acmaamihi wa ixwatihi wa duyuufihi euh, min شتى الأقطار في هذه الأمسية المباركة أو في هذا اليوم النير ñëpp maa ngi leen di nuyuwaat di nuyu shabab bi ak sax seen jigéen ñi di nuyu bay nuyu mbaar mi ak garab yi di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu. damay daagu ci nuyoo bi tuuti ndax su wax ji naayoo na gudd ma mën a waaxu sax ci nuyoo bi waaye nag comme euh, dama ci mos ànd ak yéene it luñ fi defati rek su ma ko mënee fekkee ko ah kon nag maa ngi nuyu ñëppaat di jéema Euh, ànd ak yéen ñuy fàttaliku luñ fàttewul di jéqi um, ay tomb yoo xam ne daanaka ci jéqiku la dëkk euh, te di ko jéem ci ni ma faral di yéene daay man mooy yéene rekk ne bu ñu toogee ci suñu biir ñunu nu neen ak suñuy gan fu mu di doon ci àddina luñ fa waxtaanee war nañoo yaakaar mu jëriñ ci yii nga xam ne soo waatee ci yàlla ne it itteel na bàyyi lool euh, doolak hmm. moo di imaan al imaanu billaahi xaqan gëm gëm yàlla ak jaamu yàlla ca nam la ko sante ak jikko yi ci juddoo yépp ba ba ngay commencé dox jëm ca ba ba ngay egg ca dox ca xam nga dox jëm ci mooy dox jëm ci yàlla inni daahibun ila rabbi sayahdini dem dox dox jëm ci asayru ilallaahi xam nga bokk na asayru fillaahi hmm. départ bokk tañ yegg fa nga jëm waxi olof yu leer la moo tax sufiyanke yëpp di moytandiku dox ne di njàccaar egg faf gumbo loolu la ñuy bañ dañu ci yàlla léegi maa ngi gërëm wax dëgg yàlla euh, euh, Ibrahim Mamoun Niass Baye Mamoun ndax dafa itteewoo woon su ma jógee dakaar ñëw fii yàlla fab ko yombal ndax dama jógee Dakar ñëw Medina dem Taïba seen ñëw toogaat Medina ñëw Koosi gis nga maanaam macha allah. li ñu wax euh, ne moom la ñuy jéem di korfati nii mooy bàyyi ci Kossy maanaam bàyyi bi mu nekkee Kossy xam nga loolu d'abord yaa ngi commencé ci bàyyi fi mu nekkoon ci Kossy ndax loolu lu ñu mun a gis la mun koo làmb fu bàyyi dëkkoon ci Kossy nit fu mu dëkk rek mun ngaa waat ne itam lu ko wër rek laal na ko mu laal ko xool na ko mu xool ko moom daf ñu daan Euh, li ñuy wax la français motivé daf ñu daan motivé moom bàyyi ridwanullahi alayhi suñ bu ñu eggee Madinatu Munawwara rek bu ñuy dal rek laa dem leen kat mbedd mu ngeen jaar rek fu ngeen romb rek jàpp leen ne yonent mës na faa romb mooy koy sànq bi may ñëw su ma su ma jigéen Nafisatu Mahmoud Diop dafa ne ma mandaat dem tay dem koos yi jaar kër baay siyaara ñaan yàlla su ma ñibbisee itam baax na ma ko ah loolu kay baax na pour ñëpp xam nga makaan ak zamaan mënoo tàggale seen jiixit ak seen jëflanteeg makiin <laughs> mëkkaan mooy barab ba mëkki mooy kafane walla këfa fa ñëw moo tax ziyaara am solo lool quoi léegi nag koos yi ku amutoon sax euh, seetlu euh, ci mbir yi du tere nga xam ne ku am solo lool mënul mënul ne tëll ci barab bu amul solo mënta am yàlla moo def Kossy lu bari bàyyi yàlla soob na boppam mu mu mu mu ñëw ci Kossy mu tëbbi Kossy may Kossy ilhaamu Kossy barke Kossy yëpp bàyyi nekk Kossy boo tax dëkk bi kenn mënu koo sewal mënta am yow mun ngaa mun ngaa fay sa poste poste yi émettre ëslëg ëbët doo dégg dara kooku sa affaire la waaye moom euh, boo ubbee rek dégg gis kon nag nekkul ci réeg dëkk ba te réeg dëkk sax kan ci tàmbale jaameetul xarawi yi ne maa ngi koy wax sànq euh, baay nekk université bu rëy ami bànqaas tey gannaaw bu mu nekkee jumaa ju rëy gannaaw bu mu nekkee jàkk ju ndaw joo xam ne Faatimatu ummul baniin moo ko tabaxoon ci Maroc université Oxford ak Cambridge demal nga laaj leen na mu déparé woon université Dakar sax du école de médecine rek la déparé woon ñun ñu ngi ñaan yàlla li sos fii yéene ko lu jiitu tey yàlla yàlla yàlla dëggu te na am barke te na jëriñ ku ko fekkee ak sax ku ñëw gannaaw bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi waaw il faut ñëw ñu def loo xam ne aadala la parce que euh, baay mii nit ñi doon buuxante ci peggam ci arafaat ak ci xawlal kaaba xam na jamono dañ ko doon wax jàngal dërs bi jàngal bind bi raxasal alwa ji mu nangu ko jëriñu ca kon nag baay mën nga junju tàmbaleem ci diggante tay ba ba koosi gii surtout koosi mën nga ko wax ne nashatan nashatan muwafaqatan mubarakatan wa ma kullu nashatin bi muwafaqatin wa mubarakatin yàlla daf ko sosloo fii rek sosu ba am tawfiq sosu ba am tawfiq am barke lu ñu ko dugal rekk lu baax la te nangu na caa dugg te am na ca ndam gone gu baax ndongo daara bu baax tari alquran mokkal ko te buñ ko waxee ni tey dafay mel ni baay mii nga naan tere alxuraan ah ngañ ndax gannaaw bu demee bay baay mi ngay joxoñ terewul ma ngay déyante yàlla fii ci koos naan ko fal taj'alan xifda kitabika man na xaribaat nag mag naan yàlla fal taj'alan yàlla na nga def rik nuunu tawkiidu xafiif gi moo tax ma ne rikk du bëri wax day feddali wax ji fal tajcalan rikk nag ma defal yow yàlla xifda kitaabika alkarim wattu sa téere bu tedd bi bu bu bu bu tabe bi itam en même temps defal ma ko karaamati muy sama karaama man karaama guy ñëw sax ila liqaaika alazim ba bés bu màgg ba ñu dajeeg yow yow ma yaqumu naasu li rabbil alamina yow ma tujza kullu nafsin ma amila la zumma yow ma booba bu ma tàggoo karaamatul quran ah ñaan gu nangu de neex naa xam ndaxte kenn man dama dégg ne ba mu taree di tari ba nga xam ne ñëpp xam ne ne bàyyi kaanga ngi daf daan taril yàlla di taril maamalaaji di bàggante njël benn guddi amul làmp électricité amul làmp kolma amul tus lu may leer ak imaan muy bàggante tari ca kaw ba ne woon naa si ci genn guddi ci taarixam la bokk ndax yombut yombut de dégg naa ci sax benn guddi boo xam ne bii <laughs> dafa am gan goo xam ne du nit ku ñuul sax moom daal li ko gënaloon mooy guddi gu dal du dégg kenn kuy wax ba ba ko baa yéegee tarewut ca kaw maama laaj yi laajte ndeke mi ngi koy déglu day man ñu wax ko ne ak gan de moo ne mu ne ah gan gu mënta déglu alxuraan nag su boo mu dem léegi kum neex ci ñun rek ku am yenn façon télévision yi alxuraan du dagg ci sa biir néeg bu dégg ba cëg bu la neexee maanaam bàyyee nañ fi nekk waaw te loolu moo di nekkoon wax naa leen ne mission wu koosi mooy mission wu xam-xam mission wu gëm buñ tabax ci xam-xam ak jaamu yàlla bu sell bu jaamu yàlla yóbbu ci muy dox ba yegg léegi maamalaaji mi nga xam ne mooy kilifa ga moo fi nekkoon moo saytu jàngal baay ak di ko waxal maamalaaji moobu ah tax nañu mën a wax bàyyi fii ko si ndax daf ko yar yar bu yiw ci béy ëttu boo xam ne milieu boo xam ne nit mën na faa yar nit mu baax lool ba pare milieu boo xam ne mun fatixatu la maanaam xam nga nit dina baax ñu tëj la doo gis kenn kenn du la gis boo solee grand bu dem grand bu ku baax a ko sol mais foo dugg toj kaas kooku du kooku du bàyyi mun fatiha ku ne mu mun a jëflante ak yow bàyyi bu baax boobu di aban mu tamayisan maam alaaji ak mbokk yoo xam ne ñoom ñépp ci yarab bàyyi bu baax boobu la foofu la bàyyi doon évoluer ci Kossy dara mosul tënk dox bi mu jox dox bi mu dox jëm ci baax moo tax nag mu teel mu teel nekk kilifa moo tax mu nekk tënk bu alxuraan naan bal huwa aayatun bayyinaatun fi suduri alladina utul ilm moom bàyyi ci tax muy wax la bokk yàlla def mokkal alxuraan ko ci yemoon it kat ñu fonk la alxuraan nga ne saar yoo xam ne yónnante ñu jàngal ne loo ko jàngee rek loolu la te bàyyi sax alxuraan jooju mu xam-xam lool terewul barke bi sax man ay kéemtaan laa gis mu di ci dem ci saar yi aay ah ah maada ah, waxuma kay da nga ci tarbiya biñ ko njëkk a defal bi ko baayam njëkk a defal mooy tarbiyal xuluqiya ak rafet jikko te jikko lu ñuy yare nit la booba tariqa tijaan ñëwagul ci loxoom gannaaw gi ba mokkale alquran jàng ulumu shariya ñu yar ko jikkoom ja ci lañ ko door a jox itam wirdu tijaan yi fu ñu jaar pour baax rek Baye jaar na ca waaye nag daf caa am ak jagle fii ci Kossy ndaxte tariqa ya pour moom tariqatun muusilatun wala tariqa tijaaniya xam nga yoon wooy dox ba ci yoon wa nga nga jàdd wala nga nga fanaan ci xer la taxu ñuy wax yoon foo gis yoon rek dafa am fum la jëmee moo taxoon Baye am na taalibe bu naan iyaaka an tushgala bil awraadi wa ahliha an talabil muraadi kam biha wa ahliha almahjubu munshagilun fa faatahu almatlubu kër kër yi di xuloo rek nag ci tarixa bi ba fàttalee taxoon a jóg mu ne fexeel ba buum la dal déedéet boo dégloo bàyyi du la dal mukk tax nit daana ñëw ne ko bàyyi damaa bëgg a wér do mu mel ni ku la déggut du ñun de du man man bés bi ko waxee la ma jox ci saa si mun naa la wax fan la ca kër ga ca déngare booba ca biir mun naa la ko waaye nag léeg-léeg nit ñëw ñaan ñaan ko wirdo ci ndaw yi moom mel ni ku lay kii ku lay négligé ba xam da ñëwaat ñëwaatam de mu xam ne mbir bi ñor na la nga mu xamee ne ñor na la fekk amul werante waaw ah xam-xamu sharia ni mu ko xamee boo koy topp dëgg dëgg dëgg da ngay da fàtte sax la ca des fekk sharia itam wax dëgg yàlla dañu wax rek sharia mooy diine yi waaye nag arab naanuwaay la koy firi boo demoon ba egg te naanoo da ngay mar rekk xam-xamu sharia bi bàyyi jàng ci maam alaaji ba jéggi sa dayoo gaaw caa jéggi dayoo dafa am ay ay jumtuwaay yoo xam ne du alquran sunna rek ngay jàng xam ko ni da ngay jàng ulumul arabiyati mu yaatu lool man ci suma dëgg dëgg dëgg gannaaw boo xamee ne as ngone laa ci peggam ba nekk as as as as kii ba mujj nekk as waxambaane ba mujj nekk nekk ak moom ba nga xam ne léeg-léeg ma nekk ak moom fu kenn nekkul damaa gis ne ni mel ci qul ulumul arabiyati jafe na ci jamono yàgg jàngale nag xam naa ne ci la ma de man bi ma mujjee examiné dama daan waaye nag génn bu rafet la damay jàng diwaan yi at yu mujj yi dama ko jàngal diwaanam yi ci ndigalam bu guddee ba bu guddi mu ne waa noppalu ba suba benn bés ñu romb benn bayti bayti bu daanoo baat boo xam ne dégg nga daf ne ma loolu muy firi maa ngi yàkkam ci ne ko nangam nga ne ma déedéet safaan bala nag loolu du daan li raqiqil muharrari raqiq mooy jaam muharrar mooy kuñ goreel xanaa jaam buñ goreel mooy ku nekkatul jaam mu ne ma luy raqiqul muharrar ñun ñaar doo nga fi ne ma ne ko mooy ku nekkoon jaam ñu goree la mu ne safaan bala nag sama xol bi laay wax ne njaam gi mu nekk ci cofeel ak yonent bi njaam gu raxul dara la i eh, wallaay ñu ngi koy gis waaw mu ngi xam googu nag li tax di ci taxaw mooy xam nga waliyan mursidan ñëpp d'accord nañ ci gaaña ñoom ne waliyu moom bu xamul sax yàlla xamal ko wala xamal ko la la la ko la mbib maqamam ba laaj waaye nag bu waliyan mursidan ku nekk rootuwaayu jaami yàlla yi foog mu boole ci xam-xam moo ci xam moom mooy mooy dafa ne ayannaasu xallul hazla kooku ca kanam la ko boobu jóg na ko si lu yàgg waqfu muhammadan wa illaa taraw ni dahra jidda baraa'i mu ne ñépp laay waxal bàyyi leen caaxaan ku ci nekk na ko ba te ngeen topp muhammad ibn abdullah ibn abdul ku ko ci deful kat man génn naa ci yow te du génn gu ndaw jidda baraain la ah mu ne fala alaamu qaadaatun li xaf fi nabiyina koo fi gis mu nekk kilifa ci diine ji la tax mu nekk kilifa dañ di ko topp mooy topp ga muy topp yonent ba kon nag mu ne li taqfu alladi yaqfuhu duuna miraayi kon nag dee leen topp ku ko topp moom yonent bi te bu leen ca werante sawaun jalilun aw xaqirun fa ma lana siwa xafwihi dahran sabaxa masaay ku am darajaak ku ñàkk darajaak ku màgg ak tuuti yépp ku ñun amuñ dara lu woy topp yonent bi rek kuñ fonk loolu moo tax foofu nag mu indi benn benn tasaawul ba tey dama tëb jëm ba kanam de mu ne fa in qulta hal zal wirdu nahju muhammadin da nga ne maa ngi lay oo ci topp yonent bi ndax wirdo wi ngay joxe ak di ci lijaasaal nit ñi ndax yoonu yonent bi la mu ne aqulu naam naam wirdi li nay li safa shifaa yi wala safa yi ba tey ma ne ma boo ma waxee ma ne waaw waaw wirdu tijaan ndax yonent bi la ndax dama koy jël ngir sell ngir yàlla faj ñu xam nga feebar gënta garaaw sàggane yàlla feebar mënta rëy ba egg ci euh, sàggane yàlla nekk gaafil xijaab mun ko tuddee xaflatu wa maa yuminu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikuun ko loolu lu raglu la yàlla ne ñu bari buñ bokk buñ gëmee sax daañ ca rax bokkaale dina jafe lool nag fi sama xam-xam yem tawxid bu sell te borom bés ta jeex jaaxal na ma waaw léegi nag bàyyi koos yi bàyyi ci koos yi bàyyi koos yi ca koos yi bàyyi koos lañ daan wax sax bi nekkee xale bàyyi koos yi xamul lu ñu ko waxaloon bàyyi koos foofa dafa teel a nekk oustaz oustaz bu mag a mag a mag ndaxte bi muy bi muy topp téer yi gën a jafe boobu ci jàng la toll di ko toppul ñeneen bi muy wax ne maqaamatu xayra yi jarta jàng boobu maqaama moo doon siixatu muntahal jumoo yi ci ñu bari ndax téere boo xam ne boo boo boo séddaloon waxi yaaram mufradaat yi am njëriñ ceer bi yëpp ngi ci maqaama bàyyi mu ne amul luñ ci war a jàng ci sëriñ bàyyi moo seet magam ju baax ja tam xam-xam na na bëgg woon nit ñi xam naa ne ko ne ko téere baa ngi jarta jàng mu ne bismillah mu mu jël muqaddima ba firi ba mu jeex firim ko neex ga maqamatul ula ba mu jeex saaniya ba mu jeex mën na ko bàyyi yow mën ngaa bañ jàng maqam loo xam nag loola lu may nga dem ba ci suñ jamono mu jàngal ñu ko am na maqama yoo xam ne su ko daan jàngale kaw la xëpp dañuy fàq mel ni mel ni film yu mag yooyu waaw mu nekk ustaadan mubakkiran mais nag imaamatoom moo ko gën a teel mais ci ustaas ya ci diine wér na ne bi bàyyi di firi alquran firi mu jéggi dayoo ci koosi gi boobu mi ngi am ñaar fukki at ak juróom wala juróom benn ñaar fukki at ak juróom wala juróom benn di firi pirima di wax asbaabu nuzuliya di wax naasix ak mansuux di béralal nit ñi lu ñu wax mu mel ni mbooloo te kenn la wala lu ñu wax mu mel ni kenn te mbooloo la wala sax dangay ngay romb insaan foog na nit lay wax pekk leneen lay firi ndigal yi ci alxuraan nga xam ne dafa bëri te daanaka du ne yëpp ay farata ku xamul buy firi day taj taj rek bàyyi di ko leeral booba ñaar fukki at ak juróom u juróom te nag booba bon amewul téere yu bëri léegi la joon bëri téere waaye prix moomu moom moom tafsiru tafasir kaamil li gaa yi wax moom la amee woon kaamil bu amul kaamil waaw ñoo ko fekkee ñëpp jëriñu am na sax ñoo ci ñoo ci bëri seen tur maa ngi ko maa ngi ko noté waaw alors nag imaamatu gu teel dafa tax mu teel a mën a waade waade gu am njëriñ daf lay bëggloo yàlla te du la tiital donc mun a juble ndaxte li ci lu bëgg a jafe rek royal ci moom am na dërs yoo xam ne neexuñoo appliqué waaye nag boo royee ci bàyyi moom moom mi la ko wax ci la ne xam loolu dafa baax soo demee ba jamono yàgg ba suñ jamono ji fi mu ne xam nga ñi ñu ëpp chance bëriwuñ ku am tawfiix xam nga tax euh, tarbiya ko si bàyyi daf ko topp xam nga dëkk bu ndaw amul nëbbu yaa ngi ne fàng wala ca tool ya wala ca kër ga rek bàyyi mujj nag dundam bi yëpp nekk village yu yi ak tool yi fàng ci biti lay jàngalee mooy jiite julli yi yëpp nag mooy jiite wasifoo yi fekk tukkiwut ci biti lay waaree mooy jiite niiw yi day recevoir gan ñu jub ak gan ñoo xam ne mm, yàlla xam mës na am sax benn ministre boo xam ne dem na ba bàyyi xaw a làmboo malaanam gi ba waa ji ñëwee bi ñu kii noonu ba ba waxee noonu euh, euh, waa ji man maa ngi ko gis ci maanaam mu ñëw nuyoo man ñun jàpp nañ ni bàyyi tëdd na bàyyi dégg baat bi rek jóg ubbil ko sol boobam jóg ubbil ko ñu bëcc perong su ndaw soosu waajam ko naan na nga def kii kon nag maanaam koo xam ne nag ma ne boo ko buggee roy te yonent royteef la yonent yi ay royteef lañ awliyaaw ay royteef lañ soo ko bëggee roy amul kumpa neex naa xam ci lu mu nekkoon loolu laay wax ne am nañ chance boo doon laajte bàyyi nu mu daan jullee ngay laaj nu mu daan lekkee déedéet lekk gi fekk néeg bi feesut ku fi ñëw rek yaa ngi yaa ngi moomay bokk muy waxtaan du waxtaan sax xam-xam yu xóot day wax léeg-léeg sax mu am yu wax yuy reeru ñépp seen xel dal voilà kon nag koosi dafa topp baay ba may na ko sax mu mu def aalam bi as ndëkk def néegam ba as néeg moom nag mu fees ko ci mbaax maa ko gis ci palais Bagdad ñett ñaari chef d'état fa ma sa dal moom moom bàyyi ci njateel foo jub rek ay néeg yu mel ni këri buur a fa nekk mu ngi sedd suba teel ma dugg néegam di ko nuyu maa ngi fekk mu sàngoo euh, kii mi ngi sàngu xaw ma mbaaj xaw ma ma dugg rek ma ne eh waaye ndam naa sama néeg sa ci kaw la nga xamante ne kon gisut pale ba gisut pale ba mu nekk si kon nag dafa neex a roy moo tax loolu suñ chance la gannaaw gi yu baax yu kenn mënta lim ci ñëpp bëgg liggéey bëgg liggéeylu ci koosi la jàngee mbay ak taxawu nit ñuy liggéey ak liggéeyal baayam ba gërëm ko am na benn guddi sax dafa taw ngànj yi maam alaaji wala matt mi muy bëgg jaaroo amu fi ba mu ko laajee ci guddi gi noonu maam alaaji mermerlu bàyyi xëtt guddi gi dem dem indi xam nga arab dañuy léeb ne xaatibu laylin kuy tab kuy kuy kuy taxan guddi mën ngaa téye matt mën ngaa téye jaan te kooko du bàyyi maama laaje koo yebal ba mu ñëwee nag ba mu jaaru ba kii wan ko ne nag wan ko ne nag ah makkat bu naq naqarewul deret dañ koy fàtte nga xam ne kon merutoon ama lañ mënta naqari deret kon léegi afaaxul fayda ci koosi lañ ko njëkk seetloo ndaxte booba la nit ñi waroon a itteewoo ci jamono jooju nga xam ne France moo élif Sénégal ak réew yi ko wër alal amut ñi jàng bëriwuñ yi bàyyi waroon a itteewoo ci aada suñ koo dégg ci làmmiñam ko si gii la tax mu jël pilimam naan matlabi an akuna qutban faridan lil baraya la gayra hada musuma gis jeune buy wax loolu mu ne su ma càkkutéef mooy ma dem ba nekk xutbul baraaya bu ma téenee nag di xool niir yi séentuwuma dara lu mooy loolu taw boobu rek lay séentu matlabi an akuna saaxiya xamrin xamruhu dannuhu wa minni naim waaw dan dam ba cheikh daan nandal nit ñi ba ñu jëm jeex takk booba rek lay sàkku ma dem ba may tànq di nàndal nit ñi fekk xéewal gi di jógee ci man booba ñu dem ba mu yàgg bayti ràbb rek nga gis ci la gaa yi daan wax waaye léeg nga gis ci loo xam ne gaa yi daawuñ ko wax ba xam nga wilaaya maa ngi ko doon waxtaan ak léegi mel mbokk ma ne ko wilaaya lépp dafay leer comme alxuraan mais foog mu am lu xaw a niru ay alif miim ak kaaf yooyu loo xam lan la waaw moo tax wilaya day am ay affaire bàyyi itam léeg-léegaan mu am ay affaire waaye nag xatt bi mooy lislaam iman ihsaan nekk mu waliyan murshidan nekk nekk baaban li najaati ka yi loolu nag moo tax mu boole jàng ak jàngale jaamu yàlla ak yar su koosi rëy su koosi réussirutoon kon kon du baax moo tax bàyyi ci koosi mooy Uh, nashaa xaysu kaana yambagi an yansha moo tax fii foo fi romb rek mën nga koo ziyaare loolu laa gëm ci biir uh, koos yi afaaqu afaaqul fayda maanaam horizon fayda li mujj nekk fayda tijaaniya xam nga ci ñun lay gan waaye musul nekk gan ci baay musul nekk gan ci baay ndax moo liiral maam alaaji bopp jawaahirul maani ak cat jawaahirul maani après yàlla jël roxo ga maam malaaj jawaahirul maani mooy fi faydi Cheikh Ahmed Tijani xam nga ñun faydu musul tàggoog ñun xam nga li li li bees mooy faydatun foofu nag jàng arab daf cee baax musu fee jóg mais nag faydatu mooy spécifique taati faydatun xam nga boo noon baqarun nag yi ci àdduna yëpp nga boo ne baqaratun juñu nga benn tamrun tam tàndarma yëpp a ngi fi mel ne tamratun am nga benn faydatu boobu nag ca fin bi ci ñëw may ah. ci cause gis nañ ci moom yu bari mais bugguma tey waxtaanu karaama fàttali ko rek la gis nañ ci moom yu bari yoo xam ne dafa teera a taalif ay téere teel bind ay xasaayid teel bind téere yu ñu woy lu mel ni laamiya bi ñuy gàmmoo teel bind ay rasaayil yoo xam ne ba léegi am na ci yoo xam ne sax kenn gisul ko ndax jaaway rasaayil bëri na mais ñun ñi ngi amee lettre yoo xam ne nekkul ci jaaway rasaayil bàyyi mooy bind kii walla kii wala kii walla ñii ci loxoom te nag ñépp ñu bari la ko daan def ba mu mujj bés bi nga xamee ne euh, bés bi nga xamee ne bàyyi ca kawlax ànd nag mamalaaji ba mamalaaji tàggu leen bàyyi di dem koosee ka ñëw am na jëmmi jamono Baye jàngal na ay boroom xam-xam yar na nit ñu am teg yi góor ak jigéen dem na ba turam mu ngay commencé génn waaye taxut Baye xir ci dajale ay taalube waxantuma sax nangu taalube ni déet Baye dafa dem ba ba ba ba mu eggee ci maanaam bakaas ba feesee wala ba bagaan nga feesee xam nga te te te kii du taxaw su pexe amul ndox dana tuuru te ndoxam pay bi warul tuur maa ngi di junj tontu loo xam ne man raaw yi mun farit laa ci ci laa xame sax xadiisul afraad baax na lool ndaxte suma baay Mahmoud Diop moo ne ma dama waññeeku dama jóge nele ci maanaam ci ci ci ci ci ci wetu maanaam maanaam ci xarfu xarfu këram xam foog nga romb kër Baye Xalifa romb kër Baye Laaj Bakar euh, bi ci kii mu ne ma ma romb Cheikh Ibrahima Niass mu taxaw ci new gi nekkoon ci buntu Zawiya bi fa rek buntu kër limaam Baye Alaaji Bakar déggu ma bu baax mu ne ma ne ko ma daal dama dégg bi ñu doon jàng xawma ifaada ñuy wax fayda taati faydatun ala ashaabi xata yadxula annaasu fi tariqatina afwaajan afwaajan ba déclaration wu cheikh ba jeex suma bàyyi ne ma ne ko bàyyi bàyyi jeune bu rafet bu ma ne ko moo luy fayda loolu daal xam naa ne ay ay vingt cinq yooyu vingt six mu ne bàyyi ne ko ah Mahmoud du neex a firi léegi waaye nag mën naa la koo léebal wa tilka al amsaalu nadribuha linnaasi wa maa yaqiluha illa al aalimuuna du ñaar du benn aay de ñaar la mu ne soo mu ne mu ne ko soo mbaay ne ko lébal ma mu ne ko dangay teewlu ay yëf dangay teewlu waxambaane woo xam ne li ko uutaleeg waxambaane yi mooy moom du sonn du màggat mu ne ko waaw mu ne ko nga nga teewlu baag boo xam ne li ko utaleeg baag yi mooy du dog mukk te du màggat mu ne ko waaw mu ne ko nga teewlu teen boo xam ne li ko utaleeg teen yi mooy ndox ma du ngëcc mukk mu ko mu ne ko nga teewlu nag mbalka mu rëy mu ne ko ndaw loolu du sonn di jëfandikoo baag boobu du dog di di di root ci teen boobu di sotti ci mbalka mu rëy moomu mu ne ba jëmmi jamono baag bi génn fekk mbalka mi fees mu ne ko te nag teen bi lu ca jógee du ca dellu dafa doylu waaw mu ne ko sa ndox mi foor ba kenn du ko tuur te te mbalka mi fees na Mahmoud nu ñuy def mu ne ko man kay xaw ma ko mu ne ko ankay ah dañ naan kii root taxawal tuuti ay beñuwaar ay xandi ay ay bool ak i xam naa ak i koog ak yëpp sax ndax maqaaba yi dafa rawante mu ne ku ne ñu tànqal la ci mbalka mi la nga xelloo ba baag bi xaj ci ñu sotti ko ci mu ne mu continuer di root di sotti temps bu feesee rek ñu tànqal ñeneen mu ne ko Mahmoud loolu mooy fayda ilal ëbët xam nga lu mu jural taalibe mboobu lettre bi tax ma laaj ko ba mu wax ma loolu temps yooyu su mbay dafa naa woon lettre yi boobu dem naa ba mën a lire arabe nangam nangam mu ne ma ma ne ko lu tax bàyyi nga naan bàyyi maa ngi sant yàlla mi ma seddaloo woon fenk jant bi njëkk njëkk xottee ko fajar ma ne ko loolu mënta am mu ne maa ah, ngay xotteeku mu ne ma feeñ bi mooy feeñ ak fayda bi fajar mooy waxtu wa jot te man ba may wax mbiram fayda boobu feeñalagul fayda léegi moo tax nga gaawantu mu ne moo tax ma gaawantu loo afaqul fayda nag moo indi nag gannaaw gi bàyyi di wax yu ñu xamutoon ba mu jógee ñu xam ne kii euh, euh, li ñuy wax kii am na promesse waaw yow koy waxee noonu moo tax bés biñ ba ki ki wax ne maay imaamul fayda fekk na ñu xam ne mooy borom xam-xam bi fekk na ñu xam ne mooy ku gore ki fekk na xam ne mooy ko tabe ki fekk na ñu xam ne mooy ko suufee boppam ki fekk na mu xam ne mooy ku baayam gërëm ki fekk na mooy yaayam gërëm ko itam fekk na mooy ki nga xam ne mbokkam yépp ku baax lañ gis ci moom mooy ki nga xam ne lim mujje wax yim daan wax yépp ñoo tax ñu dëggal ko xam nga géwénti sax kuy kuy kuy wax lu dul am sa géwénti xam nga du dëggu géwénti ngelaw rek ngay def waxatu dëgg yi seen géwénte day dëggu bàyyi nag ñëw bés bam ne mooy imaamul fayda ñépp xam ne mooy imaamul fayda fayda la ma waxoon sànq ci arab mooy li sidna cheikh radiallahu anhu ne woon dana masa am faydatu boo xam ne ci sama taalibe yi lay ñëw lay sotteeku ba nit ñi di dugg lool mbooloo gannaaw mbooloo ci tarixa bi ña nekkoon ak moom ne cheikh daan na wax lu ci jublu de waxul sax nii ñu bari ñi mais fatxu fatxu dafay bëri fatxu day bari maftuux yi mooy mujj nekk aarif waaye nee na fatxu mooy buntab maarifa waaye doogul sax maarifa mu bu waaj taxawee day mujj mel ni ku xiifoon géwént di lekk wax ju leer moo tax nanguwul dox bu taxaw ba tey taalibe baay boobu ma doon junj ma nga naan alaa ayyuha al ixwaanu siiru wala yakun ladaykum sududun limriin xayri saairi day leen dox te ku doxut bu mu leen tere dox yéen waaw téere yooyu baay bind ci koose gannaaw ga ci Medina gannaaw gi ci àddina bi kii ci mujj mooy bayaan wa tabiin ci la bokk ma ngi ko commencé dicté ñu ngi ca Tunis sabilu salaam mi ko commencé dicté ña nga nekk ca Makka boo ko doon lim euh, téere yu mag yu ndaw yi jege na juróom-ñaar fukk wala mat na ko lépp bàyyee ko taalif te mus koo yàqal dara ak diwaan yi nga xam ne nee na mooy meññetu dundam bi damaa gàttal wax ji lu nekk ci ëddëbang ci te ci siirang ci cofeelang ci maarifang ci ishaaraatang ci mutaa ëddabiyaang ci lu nekk ci diwaan yi moo tax ma ne woon Baye sànq Baye Mamoun suñu dina am guddi goo xam ne maa bëgg a ñëw laamiya boobu ngeen may ma mën ma firi ko muy sama participation jamaata wa joodan haybatan wa jalala wa absortu min za bahjatan wa jamala parce que keroog dama ko commencé firi benn waay mun ma déet waay ma ne ko dama ne ko jamaata boole nga yow yonent bi yii may wax si haybatan wa jalaalan wa juudan doo ci soxlaa ci ñu naan waawu maala mu a ma yow wéyul ma ne ko wéyu ma léegi dama ko dig ay jamaate boole ga yow yonent bi yii may wax si haybatan wa jamaalan wa juudan te moom dafa njëkk a wax wa juudan te te bu ma fent ko ndaxte woyi man lu ko njëkk a jox ma sotti ko door ko jox nit ñi alhamdulillah rasaayil yi maa ngi koy dénk ñépp yii Koosi la ko bindee yii Medina la ko bindee bàyyi def daan bindal boppam léeg-léeg mu bindal sëriñ Aliou mu jigi yu li mu bind ci lettre bu bàyyi bindul moo gën a bëri ndax lu bàyyi bindul rek moo ko bind mais li sëriñ Aliou bind yii bàyyi koy bind mu sotti yii bàyyi koy wax mu bind ko ci la yii bàyyi tàmbali mu mottali ci la ko bàyyi sant lettre yooyu xam nga li tax ma di ko dénkaane moo di taalif yi sax lu ci nekk dara koy tax a jóg lettres yi nag mooy dundab baay bi en mouvement nga bind ko mu tontu nga laaj ko mu tontu ku juum mu jubanti ku tooñ mu raddu la dellu caram nekkoon moo tax euh, yal nañu yàlla may ñu mun a defar balaa yàgg as kees soo xam ne la ca nekk ci xaalis duñ ci jublu lu mooy bépp téere bu bàyyi taalib ñu fexe ba mool ko mool boo xam ne dañ koy mellale zéro faute ndax faute yi mooy faute yi ñiy dóor ci machine bi ne téere bàyyi amul faute waaw buñ ko defee rek pour ñun ak pour ñeneen ñi pour postérité boo fekkee téere bàyyi baat yépp nam ko waxee woon nga fekk te mën naa am mën naa am lool sax ñun nag lu ñu waxoon mooy xam-xam ak yar lu ñu waxoon mooy gëm ak jaamu yàlla ak jikko liggéey foofu la jóge mbokk gi foofu la jóge taawun tadaamun solidarité foofu la jóge te lii ñuy sémb ci góos yi ak feneen fu ñu ko mën a sémbati leneen du mun a sotti lu mooy suñu mbokk gi suñu solidarité gi suñu complémentaire gi ñu def ci liñ men yépp yàlla di dimbale ñu parce que jàngu bii la bàyyi waxoon bés bu taxawee dinaa ci wax la bàyyi waxoon ca daara jam tabaxoon ca biir këram commandant bi daf ko laaj ne ko est-ce que sa école bi am na autorisation bàyyi na ko ah, loolu de man mënu koo tontu ndax man ci laa jàngee xanaa su soo bàyyi nekkoon ñu laaj ko ko tabax bi rek de moo fi bees université bi incha allah taala bu taxawee ba ca kaw itam mooy daara jabaay doon jàngalee rek moo tax ma yaakaar ci ak mat yaakaar ci barke lim bi ñu wax ci ci étudiants yi boo ko xoolee xam nga day bëreeg yow mais université Kossy mun naa jur fukki doom ci biir Sénégal ak ci biir Afrique su boobaa dootuy wax sax ay san nangam kon nag ilal amaam Baay wax na sëriñ bi juñu na ko sànq asalu rabbi an yaumma hadiyi kulla alwara wa yaxmaduuna saayi ñaan naa suma borom njub mi may tasaare ci diine ji ak tariqa bi te mooy diine ji mu matale ñépp ñépp ñépp te nit ñi gis ne li ma def lu rafet la lu baax la lu wér la parce que xam du xamdu du dafa yaatu mu du rek nga ne nga ne jërëjëfee baay noonu non jërëjëfee yaa ngi koy sant waaye nag an an wa yaxmaduuna sax yi xamdu naa si sax yi cheikh loolu la ak lu ko gën a xóot nga dégg ko xormaal ko yem ci ay limitam mbir mu ne nga xam ne ci pee bi du num la neexee ak yow mais na ko bàyyi jàngalee la ak nam ko wonee ñim yaral boppam directement am na benn waaye mu ne waaw suma baay moom baay moom amul taxul ñuy wax mais yow boo ma doon dénk euh, braqué ci kenn di ko roy ma ne ko du ma xam ku ma lay wax waaye commencé ci signal yu siise mi nga xam ne baay moo ko yoree ba pare ci moom mu def déclaration bés ne musuma mooy ndigalu bàyyi lu mooy benn yoon ma foog ne sax loolu mooy ndigal la du mooy ndigal bàyyi moo ko ne del dépensé ci sama xaalis soo ko yoree ci sa kër ndax amuloo jot mën na loolu defuma ko musuma lekk dërëmam bàyyi ma ne ko royal ci kaw bu lekk dërëmu kenn lu mooy bu la ko joxee xalaalan tayiban waaw man ma ak kan ne ko ñëpp rek ma ne ko ñëpp rek ku bàyyi yar ba pare ci moom boo ko yaree da ngay jëriñu ci moom bul xeeb kenn muy góor muy jigéen kon nag mën nga wax awdun ala badin koo seetaan jàngale tey ñu daje fii pour wax jàng jàngale ak fàggulu xalaal mooy jaay ak développement ankañ génn guñ discours bàyyi de sëriñ bi bàyyi laa njëkk a dégg ci année soixante yi ci takkusaanu gàmmu mu théoriser développement maa ngi déglu gars yi rek gisuguma ko wax lu ko passé ci lislaam mu ne daal laay jim jàng gis ne yàllaa ngi wax nit ñi ne wa maa jaalnaahum jasadan laa yakunuuna taama wa maa kaanu mu ne ci la xamee lii yàlla nee na nit du mbindeef moo xam ne dafa mun a nekk te du lekk du naan nit foog mu lekk foog mu naan te itam foog mu dee bés kenn du béel bàyyi mu ne ma ne kon nag ku mënta ñàkk lekk mënoo ñàkk naan war ngaa liggéey dara fekk amoo ngant ndax boo liggéeyut ñëpp def ni yow rek kenn du lekk kenn du naan wax ji leer na mun te ko mënoo ñàkk ku mënta ñàkk dee war ngaa gëm yàlla jaamu ko bàyyi mu ne ci laa defaree muadala bi ne kon ka dund bi maanaam alxayaatu mi ngi tolloog gëm yàlla di ko jaamu ak di liggéey gannaaw ga beneen bés mu ne amul benn métier mu ñaaw ñàkk métier ak ak lekk lu lu xaraam rek moo bon waaye fu waay toll war naa mun a def dara fekk amul ngant xam nga ci toolam yi nga xam ne du ko jëriñoo koy jox nit ñi waaye quand mi ngi koy toppatoo boo fi njëkk jënd ay machine pour moderniser mbay mi ci ba bañ buddee garab ya leeral yoon wi dégg day te man gis naa ne daawul jëriñoo xaalis ba daan na ca def rek li ko gënal moom suñ bayee suñ liggéeyee ba ba ngoon ba liggéey ba jeex loolu muy waxtaan nit ñi ci yàlla moo ko ci gën a moo ko ci gënal ak lam cey lam cey dundule ngir yàlla développement gis naa ko muy encouragé ay taalibe ba ci ay doom sax ci faggu lu dagan El Hadj Abdoulaye Kay taawam la wax naa leen keroog ci tay ba may leen baay maa ko nuyu mu ne ma alaaji euh, gis na la ma ne ko de maa ngi door a ñëw mu ne ma wax naa ko ne na sos na defar benn compagnie buy buy yaxamtu affaire maanaam na maanaam na créer benn société euh, doon naa waxtaan ak président wu réew yi boobu Senghor la mu ne Senghor ne ko am nañ fi fonds yoo xam ne mun nañ koo lebal njaboot gi bor bu yàgg long terme wax wax naa ko ne na sos ab compagnie wax naa ko sax mu boole la ci xam loolu ñëpp la ko wax moo tax fii nag buñ ñëwee lënkale jàng diine université xam nga maanaam day fabriquer ay nit mos naa gis benn recteur bu dëkk Ussiyut ca Misra ñu daje Maroc muy def benn conférence ci université yi tuddee ko les universités fabrique des hommes université mu ne mas naa la buy defar ay nit di leen préparer kon nag ku wax fii préparer nit mooy defar xel ma defar jikko ja mu mën a am njëriñ ci àddina bi lislaam yonant bi nee na duul ki gën ci yéen du ne mooy ki bàyyi àddinaam ngir àllaaxiraam wala mu bàyyi àllaaxiraam ngir àddinaam foog mu boole leen ñoom ñaar rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laaxirati xasanatan wa qina adaba nnaari la yàlla wax te aay bu doy waar la sax ndax dafa am ñu ne aatina fi dunya te faalewuñ àllaaxira ñii ne Euh, ñoo xam ne dañu wax rek euh, euh, maanaam dañu dañu mi ngi mel daal fi dunee xasana su faraxeet xasanatan ñu leen boole ñoom ñaar waaye nag bàyyi àddina ngir diine ke sax dafa mel ni amut moo tudd ko bàyyi bëggoon ñun ñëpp ñu nekk ci saxwatu googu ci baqaawu googu Euh, di di di di di jaamu yàlla di ko sopp di ko tudd di ko xam di dox ci moom di di di di di xam ak xim mi di di jeex ak a des euh, di liggéey di fàggul am njëriñ jàngal nañu ci ab dërs euh, xadis booba ñu ñu egg benn xadis mu ne mu ne yonent bi ne nee na yonent yàlla a sax ci coono ci ñaqam la daan dund mais am na waajoo xam ne moom dañ koo gis ñoom nekkal jàngalu leen yaru leen faralu leen fenn daal euh, mu ngi toog ñëpp di kër kër yi yonent na kii nag moom mu mu ne ñu ne non moom dañ ko noppal ba alu lu muy wéyee mu ñun ñun ñëpp ñoo koy jox li mu wéyee mu ne kon yéen ñëpp a ko gën yooyu ay jàngale la kon nag maa ngi ñaan yàlla bàyyi moomu nga xam ne bi mu nekkee koosi mun nañ cee fàttaliku yii ba la ñoo tëj koosi am na yu ñu fa gis man ay israxaat laa ko tuddee benn bàyyi nee na en tout cas man wax na ma ko loo benn yoon commandant bu nekkoon Kaolack te yàlla xiir ko ci bàyyi mooy ki ko dogaloon saam defal ko ay garab ba mu fes del ak i teen commandant luwo dafa mu sa ñëw koosi ne baay bu yàgg ba tey maa ngi topp toppatoo dara waaye bugguma doon ko yëgal fekk sottiwut baay ne ko lan la mu ne ko dama bëggoon France nangu ñu nomee la qaadi nga nekk qaadi qaadi shar'i baay ne ko ah waaw koy yow da wax waxtu ne nga naan suma xarit nga waaye loolu yow dëggal nga ko waaw ah, jërëjëf waaye nag li ma ci naqaree mooy duma ko nangoo tubaab bi dafa tiit quoi xam nga tubaab mel ni ku mel xam nga ça va mel ndax yaa ko tey quoi xëy na quoi ça kay ça mën na ko ah sëñ bi xaad yi bàyyi na ko kaa de su may nekkee xaad yi di ngeen nangu ma àtte ci alxuraan ak sunna mën na ko ñun kay bi ñu laata wax am nañ benn mudda benn benn code boo xam ne ay aadaan ci aaday réew mi ak dara ci ci ci ci droit wu bàyyi ko loolu moo tax du ma nangu nag tubaab bi jéem koo convaincre xam nga la ko bàyyi wax xam nga man lu ma bëgg pal goo xam ne yow munoo maa folli gouverneur du Sénégal munumaa folli gouverneur général Dakar munumaa folli ministère des colonies munumaa folli boobu foofu lañu yem nag mën na ko mooy la mën ko mën na ko nekk sëriñ nekk boroom xam-xam yéen ñëpp may naa leen ngeen génne ay décret Ibrahima Niass du sëriñ du borom xam-xam mu ne ko déet munuñ laa pole ndax falu yi la mu ne ko loolu laa bëgg ko moo tax nee na ma commandant boobu boobu tubaab boobu daanaka noble la ci France léegi-léegi mu ne cag cag cag ak koto sa ba ñëw bàyyi na ma foog ne service lay dox si mu ne ma déedéet dama nam rek baati taalibe yi sikkat ku kenn xamul lan la. fonk baay parce que gis nga ku fonk yàlla yàlla fonk fonkloo ñëpp la. fonkloo ñëpp ñu fonk la. nee na ma sax bés ngeen bàyyi ma détail yooyu ndax koosi la nee na benn bés euh, tubaab boobu dafa ñëw ne ko da gouverneur ba ca ndar daf ma bindoon ab leetar ma tontu ko dama bëgg woon la tontu li bala ma ko yónnee. dafa ma bind naan ma dégg na da ngay dem toujours ci Ibrahima Niass dégg nga di maa ngi lay yëgal sa mission ci Sénégal dem ci euh, Ibrahima Niass bokku ci mu ne nag lii laa ko tontu bàyyi na ko jàngal mu ne ko dama ne ko yow diw gouverneur du Sénégal ñëw gu ñëw Afrique ak hiérarchie administrative bu taxee nga mel ni yaa nekk ci kaw ma nekk ci suuf na la doy nag mais nag bul ma wax lu may bëgg lu ma bañ ndax maa ngi lay fàttali bu ñu nekkoon France ñëwuñu Afrique fa may tëkkee jabar doo ko fekkee même église fi may toog yow doo fa toog te mun naa laa jàngal xam nga yow ba nga xëy dee kon nag li la administration jox doy na bu ma waxati lu may bëgg lu ma bañ gannaaw tey dali ko yónnee te dara jotu ko alors baay moomu nag noonu la daan recevoir mbooleem nit ñi nga xam ne dafa mel ni ñoo nekk ci biti waaye koosi moo doon maxdan al tarbiya ad diiniya wa maxdan tarbiya ruuxiya fii la daan tontoo laaj yi laaj yoo xam ne kuñ ko waxoon signal hmm, yu mës na ko laaj ne ko sëriñ bi dama bëgg nga xam ne luy ëzël ak luy ëzëlul ëzël ak luy ëzëlu ëzëlil ëzël nga booleel ma ci luy ëbët ak luy abadul abad ak luy abadu abadil abad waaw xam nga loolu moo ko laajoon xam nga Oman yaay xam nga du teel reer du teel reer tey mais bàyyi daf ko tontu mel ni kuñ la laaj luy luy guddeeg luy bëccëg fal azalaatu fal azalaatu la ilaha mooy azal yi mi ngi ko njëkk a tontu ne ko ne ko al azalu ibaratun amma lam yazal qattu mu ne ko ëbët booy ibaara amma la yazalu awdu li xattuy dàq ci li paase nga xam ne du jeex mu ko noonu la awduy dàq ci liy ñëw waaw ndem ndem azal rek moom ngay topp amul fu mu yem ëbët nga yóoru amul fu mu yem azalul azal nag te azalu azali azal nag mu ne ko mu ne ko waaye nag seetu ko yow ci xadaraatu salaas di ko wax di ko wax ca Koosi ñu jóge fa ñu jóge fa ba mu 1951 ca rexlaam ajak ñaareelam bu fees ga ca rexla ba mbinoo nayul ma faas mu wax nag ay affaire ne nag man zaqaha yasiru sayral abadi yajnil maarifa bi fadli madadi man yooyu may junj nag ku ko mos nag booba ngay doon sayru ci ëbët nag waaye loo fa sàkk ci mango yi xam-xam xamal ne maa la ko tëbb de oui oui oui yi du jeex du xaaj yenn yi nag moom romb ko noonu dem rek waaye baay mi ko bind ak ñam ko bindoon baay Omar Kouta Omar Ben Malik modérateur bi maamam laaju ne laaj na ko bàyyi fii bàyyi tontu ko ba am na ci fi mu ne daanaka ay pamphlet la yoo xam ne xam-xam rek la feesal ñi ñuy wax maqamatu diini salaasa moo ko ko laaj bàyyi ko tontu mi ngi ci loxo nit ñi waaye nag ca Italie firil naa ko ndongo yi firi boo xam ne sant naa ci yàlla kooko gisagut seet ko. Hmm? déedéet déedéet même kooku fi naa ko bare mi ngi mi ngi ci mi ngi ci ngi ci ku nekk tubaarkàlla lii dama wax rek bàyyi ci koo si du waxtaan wuy jeex bàyyi ci koo si du wuy jeex bàyyi si jàngale na jàngale na jàngale na jàngale na ba mu ne ma dafa yaramoom wi dafa mujj mel ni perkaal ngir ngir ngir ngir loof gis na booy làqar ci Medina ba mel ni ku bugg a jëm yoon Dakar noonu xam nga da nga romb foofu Iba Ndaw dëkkoon kër Iba Ndaw ci fiñ école bi nekkoon foofu nag te léegi ña ngi koo sax def ay seng tabaxuñ ko foofa benn médecin bu ñuy wax xamu Robert boo fa nekkoon waaye dem fa mu ne mu seet ko seet seet seet ne ko yow yow avocat nga bàyyi na ko déedéet du ma avocat de géwél nga mu ko du ma géwél de mu ne ko ah dara jotul de lu ma yii may wax si wax ju bëri ak ñàkk nelaw ak ñàkk lekk il faut nga dem lekk nelaw nag te nga bàyyi wax ji wax ci mooy jàngale mooy jubal nit ñi mooy waaye de xam nga mënu koo bàgg xam nga médecin bu am xam-xam la. médecin lan moo tax benn yoon man muy aadaam du aadaam ndax bàyyi ko wér la mais nag benn yoon ci année soixante nangam yi man gis naa ko muy mu mu muy jàngale ba man daal ba mu xaax ko comme bàyyi bi yooyu guur loolu niru na ma deret mais benn yoon waaw te xam ne bàyyi ci ñi gënoon a wér la bokk mais boobu la gis naa ko itam tarbiya koosi boobu gis naa ko mu def ñaari yëf yoo xam ne ñëpp dañ ko romb seetluwuñ ko Baay moo daan jiite mbooleem julli juróom bés la xëy coobareem jël signal yu muy jiite xutba nag bés bu ajuma ba xutba ku njëkk gi jeex mu junj alaaji Abdoulaye bàyyi wàcc mu yéeg mottali xutba ak ñaareel moo tax nag bàyyi nee na tubaabu français rek mooy yar nit ku bëgg mu màgg moom day tarqiya day junj day def jëfi junj waaw kon nag lépp lu xew ëllëg incha allahu taala ci